asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi maa ngi leen di siyaar bu baax di leen nuyu di am kontaan ak mbégte trop ci teew bi nga xamee ni dañ ko fee teewaat ci émission bi nga xam ni moom mooy seen émission Ëttu Doxiduna tey nag yaakaar naa ni fa xibaar ba jëm nopp mën naa dallooti mbaay tamit xel mën naa sori ndax saa boo xëyee dëgg loo xamee ni mënees na laa jaaxal ci waxin waaye nag suñu borom yàlla nu may aw dëgg akum topp mooy ñu tamit fasaaxa joo xamee ni mën nañu koo wax ndax xew-xew ba na mu toll li tax ma wax loolu mooy yàgg naa di junj ay bunt yu bari ci ay jëmmi doomu yoo xam ni dañuy am culture à la base dañuy jóge ci réew mi mu am lu ñu leen yare am fu juddoo ba màgg fa am lu ñu def ci ñoom ci mbiru diine ak aada waaye saabu bu tukkee loola ci ñoom day mel ni ab yëre bu ñu sol rek war ko sumee li tax ma wax loolu nag yàgg naa wax ne xale yu bari mbaay tamit ay soxna yu bari yoo xam ni ci réew mii lañ leen meññee ñu am ay maam am nday ak a baay ñu wer leen ci lislaam mbaay tamit yer leen fu leen war a yere waaye bari na ci ñoom ñoo xam ne bu demee bitim réew danuy summi yére boobu am benn benn melokaan bu nu mel mbaay tamit topp ñi nga xamee ni ñoom lañ fa fekk ba tax loolu mën na leen jural ay jafe-jafe donte yi tamit du ñëpp waaye am na ci ñenn ñu muy dal ndax kii nga xamee ni moo waral mbir mi day jigéen boo xam ne ci la ci réew mi la juddoo te la dem bitim réew waaye bi muy dem bàyyi na fi benn doom joo xam ni am na fukki at ak ñaar kon jàpp ngeen ni kooko teel na fa dem lool. yàlla dogal nag mu dem bitim réew bàyyi fi doom ji doom ji nag ay mbokkoom ñu wax magam bu jigéen yar ko fi def ci moom lépp lu war donte yi tamit moom moomee nga xam ni. moom moo jur doom jooju yenn saa loxoom danañ àgg ci doom jooju lu mel ne xeetum kaye mbaa soluwaay mbaa tamit yenn cay addiye ngir xale boobu mën koo di ko dimbali koo xale boobu nag màgg na Sénégal def fi ba am fi ba jàng fi ñaari at saa baram dogal way juróom bu jigéen fexe na ba itam def ay jéego ngir xale boobu mën a jóge fii ci réew mi dem bitim réew xale boobu nag ñu fàttali leen ni juróom bu jigéen dafa tàggali kook woy juróom bu góor booba loola yàgg na xale ba am na juróom benn at ci yooyu la jamono yàlla def nag woy juróom bu jigéen nekk na bitim réew tubaarakalla yàgg fa lool am fa wërsëg ba am nu mu fa mel bi mu jëlee xale bu góor bi fii ci senegal yóbbu ko bitim réew dafa ko fa yóbbu woon ngir xale bi àgg li njàngam mooy loolu mooy information bi nga xamee ni jëlal nañ ko ci ki nga xam ni moom moo tabbi l'information boobu suñuy loxo mu wax ne yaay ji intention bi mu jëloon xale bi senegal yóbbu ko bitim réew mooy xale bi mën faa àggali jàngam ba fa xale ba àggee nag wuy juróom bu jigéen dalal na ko dalal boo xam ne mucc na ayib wax na ne mboolem lu yaay bu am koom di defal doomam bu góor defal na ko ko mais li nga xam ne moom moo ci tukkee mooy wuy juróom bu jigéen bi muy jóge Sénégal dem bitim réew fa bàyyi woon xale bi fii ci fukki at ak ñaar ci diggante bi nag xale bi màgg na tubaarakat la am na kàttan mel na ni nga xamee ni noonu la waxambaane dëgg-dëgg war a mel waaye nag ba mu fekk see way juróom bu jigéen foofa ca bitim réew woy juróom bu jigéen dugal na ko ci ay conditions yu normal yu baax waaye nag condition yooyu dafa am lu lalu ci suuf loo xam ne mënees na ko wax waaye tamit nopp de mënees na ko dégg ndax ci àdduna rek lañu nekk waaye danañ fexe ba wax jooje ñu mën a wax kenn ku ne xam ne lii kat lu tënku la ndax way juróom bu jigéen boobu jël na xale bu doomam bu góor boobu mu xam ne moom moo ko jur ci kajom yor ko yorin gu rafet di ko fayal école lépp lu xale bi bëgg ma nga ca waaye nag dafa am leneen loo xam ni def ca amaat ci biir loola ndax xale bu góor boobu wax na ne ne way juróom de yenn saaye mu wàcc guddi fekk ci biir kër gi de mel ni ku ndeyam juree woon xamal ko ne kaay ñu dem sangu ji ci xeet fa ñuy sangoo doom bi ñu nag ci boppam wax na ne kersa daboon na dab bi njëkk ya lool ba mujj mu ne way juróom ne ko bàyyil xel ne man sa doom laa way juróom bu jigéen xamal na ko ne lu ma biral ne sama doom nga waaye sama xel dafa nekk ci yow kon gis ngeen ni ñaari jëmm yooyu am na wuute ndax kii ci réew mi lañ ko yaree ba mu màgg waaye tamit kii yaroon na ci réew mi waaye yar na ba yàggul dafa àgg lay yaram bitim réew ba pare tamit mu nekk soxna doomam bu góor bi wax na ne bokk woy juróom njëkkee sàkkoo cib sangu daf koo lànk lu bañ xamal ko ne sama wéy jur nga wéy juróom bu jigéen xamal na ko ne nangu naa loolu waaye sama xel dafa nekk ci yow loolu nag ñoom ñaar am nañ ci waroo gu méttee métti métti xale bu góor wax na yaayam yàgg na ko tante lu ni mel saa bu wàccee jógu ci bërëb yëngukaayam ndax moom danaan jàng bu wàccee fekk fa way juróom mbaa yenn saa yi way juróom di ko fa fekk nee na mujj bi nag bu demee ba guddi ga xaaj juróom daf ko daan fekk moom ci néegam di ko sàkku nee na mu ne ko way jur bu jigéen man da leer laa bu bàyyeekoo ci yow nii ngay doxalee nii kat jekkul mu xamal ko ne loolu dara nekku ci ndax day lu ma bëgg ci yow am na ci gàllankoor nag lool ba ni mu ko nettalee sax xaw naa lënt lënt suñu xel ndax kers bi nga xamee ni moom dab na ko ci jooju la wax ak diis goo xam ne gis na ko ci jooju la wax tax na wax jooju ngir mu génn ci moom xaw a nekkoon lu jafe trop waaye suñu baram nag dafay dogal ne ci ni liggéey bi doxee yar ji ak teggin ak worma bi dana tax li nekk ci dënn yi suñu borom fexe ba yàlla yotale ko ci moom waxambaane boobu nag wax na ne moom mujj na moom di jaxasoo ki wéy juróom bi mu bi ko jur ci meññ benn ko wax na ni moom ci boppam woy juróom sàkku na ko ay yoonu yoon mu ci ànd ak moom ci ay yoonu yoon dem mbir moom mu diis ko trop waaye nag loo xam ne dafa tëw a xam dafa yàggul dem na ba wax ni daaw de ma ne ko naa mu ne ma sama way jur googu de lu jiitu muy jëf leen teg man lu ni mel daan na jaxasoo ay nasaraan ni góor yàlla ak ay soxna ci biir diwaan bi nga xam ne foofu laa nekkoon ak moom mbir moomu nekkoon nag lu ma jaaxal trop waaye yenn saa yi daan na jëfandikoo moom lu mel ni xeetu si ne bar xeetu luy jëfandikoo ba tàggu ak sagom dem naa ba laaj ko diw ne ko est-ce que moom moo la jur ndax firndeel na ni ne moo la jur mu ne ma dëgg dëgg moom moo ma jur waaye nag am na melokaan bu mele boo xamee ni xëy na dandoon na ko ci jooju la réew mu dem mbaay tamit roye na ko foofa ba moom mu mel noona ba ràññeewul ki mu jur ak ki mu ñàkk jur mu nekk na xew-xew goo xam ni lu tiit la ci doomu aadama bi nga xamee ni moom moo ko mën a dégg waaye nag duñ ca yem ndax dafa bari loo xam ne bu ñu ko déggee ñun ak yéen ñooy bokk yem waaye lan moo tax su suñu xel yi mën koo nangu day ay gëstu yu ñuy def yoo xam ne danañ mën a fexe ba xam ne nekkee loolee lu wér la ndax fan yee ci ginnaaw waxoon naa fi ni am na ay góor yàlla yoo xamee ni dañuy jëfandikoo ay soxna yi tamit di leen di fay ci ay xeetu million ngir ñooñu mën a amee leer wala mën a amee bànneex soxna sii nga xam ne moom moo meññ xale bi xale bi wax na ni moom way juróom bu jigéen am na ci xeetu nit ñu bokk ñoo xam ni bokk ràññewuñu lañ jur ak lañ jurul ak lañ bëgg bànneex ak lañ bëggul bànneex te loolu lépp wax na ni moom doom ja li ko waral mooy yàgg bi wuy juróom yàgg bitim réew dem na ba da koy sàkk moom ay sàkku yu baree bari xóotal nan waxtaan bi nag man ak moom ci ay waxtaan yu yaatu yaatu ndax wax naa ko diw ne ko ne ndax mën nga ma giñal sa appla ay tàllaa ndax lii ngay firndal ne wax tëgg la mu ma loolee lu am la ndax actuellement may wax ak yow nii nekk dama ak moom dama génn dem nekk feneen moo xamal ko laaj ko ne ko ni moom ndax loolee yàqul dara sam njàng mu ne axakay ah ndax jëflante gi mu jëflante ak man ak wax ki ma koy wax dem na ba mu xamal ma ne su ma tàggalikoo ak moom mun na ma plainte wax ne dama ko doon yoole ak dama ko bëggoon tàdd tëddee te or ko moom moo ma doon defee loolu ndax xam gi mu xam ni man ak moom rek ñu ne ko ñoo nekk ci benn kër ca bitim réew ngir loolee firnde wu am na xaritam gellenk gi nga xamee ni moom moo àggale jooju la xibaar ba woo ma wax ma ko ne ma loolee mi wax lu firndeel la ndax xam naa wéy juróom bokk ak moom benn koñ xale ba bokkoon na ci lu man loo xam ne daana ñëw ci man di ma ko kalaame wax ne sama wéyjur de ma ngay doxaleek man noo xam ne bokkut ak li ma xamoon ci wéyjur ak ak doom xaritam boobu nag firndeel na ma ne doomam boobu nga xam ni xale bi nga xamee ni moom la yaayam doon sàkku mujj na génn kër ndeyam ba moom ak yenn xaritam wutal nañ ko benn dëkk waaye ca koñ bañ nekk ca réew mañ nekk ca bitim réew waaye nag yemuñu ca gëstuwaat nañu bu baax baax soxna soosu ana lan la doon yëngu ci réew ba xam nañ ci ban domaine la doon yëngu domaine googu nag mu yëngu tax na mu firndeel ne koo xamee ne la daana ko yooyu yëpp dana koy faral ñare di ko jëf waaye nag yemuñu tamit tamit ci gëstu boobu dem na nu ba gëstu ne ay soxla yu bari doomi réew mi ñu nga fi bàyyeekoo dem bitim réew amaana bu ñëpp waaye ña ngay sëy ak i nasaraan mbaay sëyee ki ñeneen ak feneen jëf leen teg noo xam ne loole mën na wàll leen jikko ndax su demee ba doom ndey jikko ju lenk di ko sakku di ko yëgal ne faw nga ànd ak man ba doom ji di ànd ak moom ba doom ji di ko yedd ba woy juróom di ko xamal ne ko ne bis boo lankee lii ma lay wax danaa la pelante yóbbu la ci yoon wan nag ma doon violé xibaar googu nag nekk xibaar goo xam ne kenn mënta wax na mu tiisee waaye nag la na ci dolli rek loolee du ko yàq dañu cee dollee ne wéy jur bu ne ak foo mën a nekk na nga xam ni wéy jur rekk nga jóge ci réew dem ci réew warta tax nit ki soppi aw melokaan wala aw jëfin te lii may wax nii c'est pas la première fois dinaa ba ñëwaat beneen jour waxaat leen lu bokk ak lii ndax ñu bari bu jógee fii ci réew mi bàyyi fi seen diine ak seen aada ak lanu gëm ci biir réew mi dem bitim réew xeetu koom-koom walla xeetu système wala xeetu nekkin dana tax ñu soppi melokaan bay dund leneen lu wuteeg loola te loolu mën na indi ay jaye loolu yóbbee na waajur bi di sàkku doom ji sàkko goo xam ni mujj naa yéeme te doy waar fi ñu wax yéen nag waxambaane boobu génn na koy kër wéy juróom am na benn dalal waaye bu mu amee waaye ni ma ko yàgg waxee rek ñaari doom duñ leen boole ci benn néeg waaye yaay ak doom ñu ànd ci benn néeg mbax mën na indi xeetu jëye yàlla mi wax ne laa taxribu xam na lu mu bindee doomu aadama ak puissance am kon loolu mat naa bàyyi xel ni ma ko yàgg waxee rek liggéey bi la ko tax a jóg mooy laayante biir ak soññe mu mujj mu mu mujj ba dem ba mujj jur daal di jur njariñ li nga xam ne falaay daanale moo di ni abonné bi nga xamee ni moom ngeen abonné ci site bi doon na itam lu gën ci yéen ndax su ko defee yëf ya day xaw a jege lool seen jëmm waaye tamit ñun tamit danañ ci am jëmm ndax bëgg gi ñuy bëgg ci indi leen yooyu la xibaar jërë ngeen jëf.